asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi jotaat nañu ndigal lu bàyyi ko ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér jaar ci cheikh mouhamadul bachir ibnu sëriñ abdou xaadir mbàkke mi xam ne moo yore kàddu yoon wi ñu di ko ñaanal moom itam yàlla dëppaleen ko yaakaari man ak yéeneen nu teew ak kii nga xam ne ndigal yooyu saa yi jógee ci moom la jëm si mooy Serigne Cheikh Mbacke moom fi Abdou Latif nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ni mu ko baaxoo defee saa yu jotee ndigal dana dem Mbacke Bawal ci waa kër moom Cheikh Ibrahima Fall leeral leen ndigalal bi daal di woot na yi nga xam ne ñoom la ko seqal loolu moo waral jotaay bii tey muy mbalem Touba mi nga xam ne moom lañu ñu war a tàmbali incha allahu taala dibéer jii mu jëm dimanche jii mu jëm di benn mën naa doon benn pan ci weer wi mooy mooy ci nga xam ne ci la ñuy tàmbali liggéey bi loolu nag moo tax euh, jëwriñ ñu ko baaxoo àndal sëriñ Mourtala si mi ngi teewal fi jëwriñ yëpp ñu jox kàddu gi sëriñ Mourtala si mu ubbi jotaay bi bu ko defee nag ñu door a jox sëñ bi kàddu gi sëñ Mourtala bisimilah. bisimilah rahmaani rahiim barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bokk ji bokki taalibe yi noo ngi toog suñu sunu kilifa gi sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif mi nga xam ne moo ne ci bopp liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ bi liggéeylu ni ko sëñ Omar waxee waaye noonu suñu kàddu dañ koy tàmbalee ci moom rek muy joxe ndigal ci mboolem taalib yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba fu ñu fi mën nekkee nag waaye rawat na ñi nga xam ne dañoo dëkkee ci dëkk bi waaye rawet na ñi nga xam ne dañoo dëkkee ci gox bi ñoo ñu dëkkee ci biir dëkk bi mi ngi tàmbalee ci daayira yi ak délégué de quartier yi ak chef de village yi ak seex yi nga xam ne dañoo yor ay pénc ay taalibe ànd ak ñoom sëñ bi nee ngi soññ ñooñu ci liggéey bii nga xam ne moom lañ dëgmal muy fas yéene setal Touba ana ñum ca teg mooy borom oto yi ñi koy dawal ak ña moom oto yi tàmbalee ko transporteur yi ka ca gën a mag ba ka ca gën a jege ka ca gën a doon gën a doon ndaw ka ca gën a bari ba ka ca gën a néewle sëñ bi ñooñu ñëpp mu ngi leen koy sant ndax kenn ku ne pas-pas rek la ciy indi ñum ca teg mooy chauffeur si nga xam ne ñoom itam ñooy dawal oto yi te ñoom lañ ko jox ñu war a ànd ak sëñ bi liggéey bi sëñ bi nee na ngi leen di soññ di leen fàttali liggéey bi niñ ko baaxoo def rek te daan ko ànd daan ci am daan am ndam si mu ne loolu lay fàttaliwaat waaye yokk na ci dara nag ren mooy fi nga xam ne foofu lañ daan tuur mbarit mi muy kàmbi daaru salaam ya dafa mel ni am nag coppiku waaye bàqee lañ bëgg ñëpp dem fa buñ ko waxee nag baaxee na mu war a na mu war a mel ci dugg gaa génn ga loolu itam nañ ko bëggee woon ña ko ñuy defee te yaakaar naa ne ko tam da nga xam ne doo fa fekk leen loolu naqari loolu itam muy fàttaliwaat sa force yi yoonu daaru muxti mi ngi ñaan képp koo xam ne ab ab mbootaay nga yor wala ab daayira nga yor wala chef de quartier ba te jox la oto nga jël ab convoyeur teg ci oto ba nañ ñëpp yóbbu ca bi bàq yee nañ fa tuuri mbalit ma te bañ ko yóbbu yoon daaru musti bañ ko yóbbu ci xur yi bañ ko yóbbu ci ay kër bale buub sànni ci àll bi la ñuy wax loolu la ñu co tegaat mooy transporteur yi nga xam ne dañoo ne ci biir dëkk bi ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi ñu bokk ci war cee dugal seen loxo mboolem ña ci gaaru Dakar ba ak gaaru taxi yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi sëriñ bi neena na ñooñu itam bàyyiwu ca kenn mu ngi soññ ñëpp ka ca gën a doon mag ba ka doon gone muy regroupement yooyu nga ñoo ànd yor sofóori taxi ak galas yi urbaine yi mboolem galas yooyu bàyyiwu ci kenn ana ñu ci tegaat mu yi nga xam ne xam nga ne dafa tooy te dëkk bi na ndox yoo xam ne neexuta dugal oto bu mag waaye oto ñu ngi ñaan borom sareet yi te nam leen yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi quartier bu ñu mën a nekk te ab regroupement ne fa te yor saret sëñ bi ne dafa bëgg bu bis baa muy dibeer jooju ñu jël seen saret yi dimbale oto yu mag yi ci ginnaaw ndox moo xam ne mbari dafa ne ca gannaawam saret bi jël ko sëf ko indil ko ko fu gën a jege ba borom oto bi jël ko rek loolu tam sëñ bi ne mi ngi koy ñaan borom saret yi waaye di soo ñaat nag ñan mooy commerçant yi ci dëkk bi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi di fi liggéey te liggéey bi lépp muy taraangay Sëñ Tuubaa ñu koy jariñoo léeg-léeg ñu indi fi mu ànd ak i xott loola tasaaroo ci mbedd mi ay ak taxal lay lay lay firi kon ñooñu itam seen loxo war naa dugg ci liggéey bi te liggéey bi kenn du ne mënu ma cee dugg ndax nu ma ci duggee kenn du ko wax moom boo jëndee alal ñëw def ci bokk nga ci liggéey bi soo ñëwalee sa bopp ànd ci liggéey bi bokk nga ci bi soo toggee añ yót sëñ mu yót yi bokk nga ci liggéey bi soo jëlee sa xaalis def ko ñu jënd ko gasoil bokk nga ci liggéey bi kon amul benn nit bu ne ci dëkk bi boo xam ne war ngaa lay wala nga ne bitim réew wala foo ma nekk ba mën a lay ne liggéey bi mënu ma caa bokk ndax waxtu ne sëñ bi wane na yoon yoo xam ne yombal na liggéey bi ba kenn ku ci la nga ci ci def loolu nag mu ngi ci soññiwaat ñooñu ñëpp borom sareet yi ak transport ak commerçant yi waaye ñi nga xam ne dañoo ne ci biir dëkk bi ma leen koy fàttali fu ma toll nga doon garage su mécanicien ne ci biir dëkku sëñ Tuubaa bi muy taq nit ñi bala ñëw ci yow nga mel ni dara xewut loolu kersa la ana ñu ca teguwaat ministre mita ministre bois yi nga xam ne ña ngay dagg bant ngay bale ñëw ci ñoom duñ am xelum sax may la nga bale ba jàll waaye dañuy dagg seeni bant muy fëndal seen yoon nekku ci ministre métallique itam sa classe du nga noonu waaye yow koy boo balewut war ngaa mën a tëj ci ñaari fan yi wala benn fan bi bañ bale noppi nga ñëwaat sa place gannaaw yow nangu woo bale ñu nangoo bale ñëw di la baleel war ngaa mën a muñ muñal leen bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ jóge fa yow nga doo tàmbali sa mbale nga doo tàmbali at sa liggéey kon sëñ bi nee na mi ngi bàyyi loo xel ñëpp ne liggéey bi liggéey bi sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa nag mi ngi mel ni tibb seex rek moom buñ tegee ñam wi ku tibb def sa biir kenn du la tibbaale ku tibb nag seex yow rek yaay rek mooy mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom lu ko waay def rek mu fay la lu toll noona moom nangu naa boole ku ne ci lu baax ndax loo booleeg moom ci lu baax rek yow da ci am lu ko lu kawe sa njort kon sëñ bi nee na mi ngi soññ ñooñu ñëpp waaye jël na di soññaat nag jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo ne ci waar wi bu màggal gi ñëwee ñuy bale su alxamis ñëwee ñuy bale su àjjuma ñëwee ñuy bale bu ñëwee seen daal tam ñu àndaat ak moom te seen kilifa soxna Astu Mbàkke moom sëñ Abdoulaye ànd ak sëñ bi ànd mu rafet ànd ak jigéen ñi ci dëkk bi ñëpp sëñ bi nee na mi ngi leen di soññ xam ne ñoom sax soxna si soññ leen waaye day jëlaat ay soññeem rek di leen ko yokkaat ngir lan mooy liggéey bi gën a yomb ci nun ci ñaari fan la daan am léegi dañoo bëgg benn fan rek bu ñu ci dajee lépp jeex kon sëñ baa ngi soññ ñëpp góor jigéen mag ndaw waaye nag rawatina dëkk yi nga xam ne dañ ko daan soññi mu tàmbalee ci mis rek mam balla ñëw Madina ture waa Touba Fall Touba Belel Ngay Mbacke Bawol bi waaye Mbacke Bawol ci boppam Daaru Salaam dëkk yooyu nga xam ne dëkk sëriñ Touba la te ñëw sëriñ Touba nekk fa te daan ànd ak moom ci liggéey bi sëñ bi dana ñooñam ma ngi leen di soññaat ci liggéey bii nga xam ne day liggéey sëriñ Touba tañ bokk ak mbooloo àdduna bépp waaye nag kon mu ngi soññi ñëpp di soññ nag ñi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi nag nga xam ne ñoom ñooy waa dëkk bi rek seen bopp sëñ bi ne mu ngi leen soññi kenn ku ci boo génnee seetal ñaari mètre sa mbedd mi ma seetal sama ñaari mbedd sama ñaari mètre keneen def ko dana yomb lool waaye itam mi ngi wax ne daay bu ne booy ñëw fexeel ba lu mu néew néew wutal ñetti gopp bu la naa ñëw seen seex mu jox ma gopp daayira ba na fexe ay goppam ndax bay dafa mënta ñàkk te gannaaw dañuy bay daayira bu ne na fexe ba jël ab ay ay goppam ànd ak mboolam luñ ko jox lu fa ñëwaan nag te yàlla dogal mu ñëw fa ñu mën leen ko jox loolu daal la sëñ bi doon fàttali noo ngi ñaan sëñ bi nu àgg ci ak jàmm te ni ko bëggee nga amee ko noonu ci barke Sëñ Touba te lépp yomb gën a yomb nu mu daan mën a yombe rawat nag rajo yi nga xam ne dañoo ne ci biir dëkk bi tam sëñ bi nee na mi ngi leen di fàttali liggéey bii nga xam ne saa su ko mosaan sumb ci yéen lay ñëw ngeen kenn ku ne la nga mane nga def ko ci ndax sëñ bi kat kenn ku ne la nga ne rek ca nga ko mën a liggéeyee kon sëñ bi nee na mi ngi soññ mboolem rajo yi ci dëkk bi bàyyiwut benn rajo dañ ba ñuy tudd aw tur di juum waaye nañ xam ne daal rajo bu ne ci dëkk bii ci département Mbacke bii sëñ bi naan mi ngi lay soññ di soññ nag mboolem seen kilifa nga xam ne ñoo nekk ca kaw di leen liggéeyloo sëñ bi nee na bàyyiwul kenn góor jigéen mag ak ndaw noo ngi ñaan ci barkab sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te ko ndax liggéey bii kat moo ci man ku mu mën a doon ndax ba mu ko santaane santaane ko dem toog rek da koo santaane ba noppi jël def ci ànd ak seen seex ci waxtu ne fu liggéey bi mu nekk ci ak ñoom ba liggéey bi ak si tey ci loxoom yàlla na ko yàlla wéral kattanal ko dolli ko dolli ko doole ba mu mel ni ndawul ñaar fukki at ci barke sëñ Tuubaa bu mu yëgee si dara ci aw yaram muy metti ngir liñ bëgg ci moom mooy mu liggéey sëñ Tuubaa te moom xam ne na liggéey sëñ Tuubaa rek ko ñor te lu muy liggéey sëñ Tuubaa nu ànd ko moom ci barke sëñ Tuubaa jërë geen jëf noo ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu noo ngi nuyu mbokki jullit mbokki taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp waa waa Tuubaa gépp ak fu taalibe Sëriñ Tuubaa nekk ci àdduna si ma lay nuyu te la jot li nuyoo si Muhammadul Muntaxa ndax kàddu yi nii kat yëkkati kat ay kàddooma ndax ci ndigalam rek la jógee te ab liggéeyam la itam liggéey bi nga xam ne yàgg nañoo jox ndigal li ginnaaw ko ay kilifaam joxee sax di Cheikh Mamadou Lamine Bara mi fi day Serigne Touba joxe woon ndigalul nañuy setal Touba bala ñoo màggala si Touba dafa waxoon nañuy setal dëkkub Serigne Touba bi balaa gani Serigne Touba yi ñëw fekk na booba danoon dox ci mbet yi gis ko mbedd yi wax dëgg yàlla mu ajoo laabal at moom itam sëriñ Muntaxa moo taxawoon màggal gi te mii moo ci jiitu woon moo ko doon taxawul boppam ba xëyee ci kër sëñ Tuubaa gi lay xëy si laxasaayu yabal nu ca waar wa joxoon ma ndigal itam ngir ma soññi bokki taal bi yëpp ci lañ taxawal itam taxawaloon itam comité bi saytu màggalu Tuubaa ñu taxawaloon ca commission assainissement dénk ma ko maa na ko bokki taalibe bi yëpp ba ca déwén sa la ko sëñ Baara waxoon ne ko Cheikh Basiru sëñ Abdou Xaadir di taxawal màggal gi sëñ Basiru itam waxoon sëñ Muntaxa ne ko nga bëgg nga boole ma ci sa njaboot ñu ma jàppale ci liggéey bi sëriñ bi boole noog moom sëriñ Basiru itam tànnalaat nu nu féete wàllu mbale mii wàllu setal dëkk bi moom nu ko tànnalee nag tegoon na ci yoon na ndigal li nañ koy jot li sëñ Sëriñ Seex Jëmb mu jiite njabootu Seex Ibra dañ koy jottali dëkk bépp nag ci loolu nag lan doon nasee nas boo xam ne doon noon góorgóorlu ba ku dëkk ci dëkk bi danañ la teg ci yoon woo xam ne boo fasoo bokk ci liggéey bi da ci mën a bokk ku dëkkul ci dëkk bi te dëkk ci aneer yi itam danañ la soññ gàttandu la jàppale la ba nga ci liggéey bi ku jegewul dëkk bi itam boo bëggee barkeelu ci liggéey bi dana yoon wuñ la jaarale ba nga mën caa barkeelu ñi dëkk ci biir dëkk bi ndax dëkk bi ñu dëkk ñi jiit ay daayir rek lañ ni ko suñ mutlaa ay seex yu dëkk ci mpénc ak seeni i taalibe ak borom mbooloo yi ñu defaraat dëkk bi ay zone yoo xam ne dañ fa wut ay chef zone ak ñu jiite mbooloo yi ci wàllug regroupement benn yi moo xam ña ko moom wala ña koy dawal ak regroupement auto urbain yi ak inter urbain yi ak charrette yi lépp suñu moto laa tudd na ko ba ci uh, waa gaaru Dakar iddika jiite leen daanañ fi daanañ leen ko yëgal ñu di ci jàpp taxi interurbain yi dëkk bi yëpp ma ci tuddee Pape Mbaye rek tudd na ñëpp mbooloo yàgg na ko wax boo limee juum kon noo ngi doon woote ay réunion fii ci kër sëñ Tuubaa gii naka jekk nañ ko daan defee bu jubee woo borom mbooloo yëpp ñi jiite mbooloo yëpp ñu ñëw kenn ku ne sa xalaat joxe sa kàddu ñu tënkaat xalaat ya kàddu ya delloowaat ko ci ñoom ñu delloo ko ci mbooloo yi noonu lañ ko defewaat ba tey jii lañ jóge ci benn réunion ngir waajal liggéey bi liggéey bi nag noonu ko fas yéene def incha allahu dibéer yi nga xam ne day doon benn wala ñaar ci safar waaye doon ñaar fukki fan ci weeru septembre bi ñu nekk mu dimanche septembre benn wala ñaar ci safar incha allahu nu bëgg nag soñ ñëpp buñ ci àggatee defee nañ ko daan defee ñu dajaloo kenn ku nekk feet li laxasaayam ci pasteefam ak yitteem na fas yéene sellalal sëriñ bi dëkk bi ndax liggéey boobu noo kilifa yaa nga xam ne ñoo jiite Touba ci kanam ñoo ko daan ànd yàlla dogal ñoom waa Touba kanam ak seen kilifa ga di sëriñ Abibu ci xalaatam bu rafet ak pasteefam bu yaatu mu yàkkale woon jàpp doxin wa ngir taataay ci dëkk bi wàññiku ba bu màggal gaa coono yu bari wàññiku loola njanga ca jottali nañ ko fup julli nekk fup taalibi nekk da nga ci man lépp def nga ko ca ba njanga dajale la ñuy dajale di ko liggéeyee te noonee rek la war a deme kon liggéey booba nag ñaar rek ko séq addiyee juñ joxe ak jumtukaay yu mag muy ay ay machines yu mag oto yu mag ak i pelle mécanique ay gradeur lépp ak boroom xam-xam yu jiitu ñu liggéeyee liggéey booba ba janga ca mu dend ak sunu liggéey bii nag nga xam ne am na lu ñu nuróole ak lu ñu wutale noonu sunu liggéey mbooloo bi mooy génn def ko loxo mooy setal ndax bu ñu nee setal bale la wax bale nag ak balee koy def wala radu wala gopp wala fourchette yooyu dañ koy jël mooy mooy dajale mbalit mi tonne ko teg ko ci kaw camion bi camion bi yóbbu ko regroupement benn ci dëkk bi yëpp nag waxaan nañ leen ko ñu ngi leen soññee nañ leen daan soññee mboolem ku dëkk Touba amu benn te bokkoo ci regroupement bi it noo ngi sàkk oto boobu nga andi ko daanaa wax ne àgg na ci ko am oto boo xam ne benn saakum ñax mën na caa nekk sa oto boobu danga ngaa war a ñu defal la ñax ndax sa oto boobu kat boo fi bàyyi ko moo ci lañ lay ci lañ lay def mu yóbbu la bàqee gannaaw oto baa la yóbbaaqee nag bu fekkee nga liggéeyal ci Serigne Touba ci setalal ko dëkkam bii man ngaa rafet mën nañoo rafet njort ca boo demee ca bàqee gam lay yóbbu tasa faak ndimbalul Serigne Touba ak tawfeexam loolu mooy lin am lépp buñ ko attanee jaayante ngir jëmmi Serigne Touba Serigne Touba jëndal na ko fayal na ko tey ak ëllëg ndax day dellu ci aaya jooje rek na inna laa ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata kon jaayante gu nekk foofu la jëm waaye jaayante gi nag sunu jaayante mën nan koo gën a yaatal tuuti gën gaa yaatal mooy delluwaat ci njàngaleem sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa day wax ne góoru yàlla yi dem àjjana taxu leen di jaamu yàlla ngërëmul yàlla moo leen di tax di jaamu yàlla mu mel ne ngërëmul yàlla dafa ne ca wàllaa àjjana kon loolu li muy mooy ngërëmul yàlla boo ko amee da ngay am àjjana biir ak jooy bitti da ngay am àjjana yi àdduna si boo demee am àjjana jee te àjjana jooje itam mën naa gën a yaat la mën a gën a yaatoo mooy mën nga caa dem yóbbaale ci ñeneen te la ñuy wax ne dem àjjana li muy neex neex bis ba ñuy gis mboro borom moo ci dàq te yàlla na ci àgg waaye bu amee ngërëmul yàlla mën ngaa dëkk yàlla bis bu set mel la yaa ngi dëkk yàlla lool lépp ci ngërëmul yàlla mën a bàyyi ko kan loolu mooy li alquran di wax radiyallahu anhum wa radu an te loolu nag liggéeyal yàlla boo am ngërëmul yàlla képp ko mën a maye yàlla nag day ay anam yaatu mooy ci mooy ñi ci ñu jaamu ko ci chariatul mutahara ak xaqiqatul munawara yooyu yaar nag ci la ñaari ñaari la góor yàlla yi daan yéegi bàgg ci seen borom Sëriñ Tuubaa it loolu rek la doon jàngale bu ñëwee loolu doon wane ci loolu la nekkoon di ko jàngal ñooñom di sooboo ci ngir ma ngir moom nekkoon ba àgg ci boromam te bëgg njabootam gépp jaar ca yo lool weesuwul yoon woowu kon nag yoon woowu nu itam li sëriñ sëñ Mountakha day wax ne buñ ci xeeb suñu bopp mooy li sëriñ Touba nekkoon ak ñam àndaloon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci ak ñam àndaloon bañ jógee ci dégg sëriñ Touba jël liggéey boobu ak ñam àndaloon buñ ko bàyyee noonu itam nan ko jéem a téye na ko ñooñu téye woon te sëriñ Mountakha day wax ne liggéey bi kenn wuru cee doy doyal ndax ginnaaw Serigne Touba loo ko defal te Serigne Touba jàngale woo ko boo ko defal li nga man mu fayal loo mënut nga defal ko loo mënut mu fayal la jomb kon la nga cay def war nga koo defee yitteeg Pastef bu baax a baax a baax te yitte jooju Pastef boobu kat ci la Serigne doon yéegi góor yàllaam ya te nan ko def ci suñu bopp def ko ci suñuy xel gëm ne suñu borom la amal du jeex mukk te Serigne Touba jaayante nag boromam. borom fayee ko ci loo xam ba bu tukki képp ko aju ci moom te jaar ci yoon moom la woon fa doon yóbbu góor yàlla yi daana la fa yóbbu lépp mu ngi dese ci rek sun yitteeg sun pasef nan jeexal sun lépp ci jaamoo ko yàlla liggéeyal ak sëriñ Touba ndax sëriñ Mountakha loolu lay jàngale na sëriñ Touba doon jaamu yàlla di liggéeyal yonte bi noonu nag dana war a jaamu yàlla di liggéeyal sëriñ Touba te loolu sëriñ Abdoulaye mas na ko wax na sëriñ Touba la mu waxoon yonante bi lan ko war a wax sëñ Tuubaa waxoon yonent bi ne ko xayaat yi wa mamaati harakaat yi wa sakanaat yi maa sayidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam loolu mooy sama lépp jeexal naa ko ci biir yonent bi salaatu wa salaam waaye lu mu ca dolliwaat ñaan aw bayit ne yonent bi wakkoon amaami wakkoon xalfi wakkoon wasati fii yamini simali yar jaayee ko ni sëñ Tuubaa de wax yonent bi salaatu wa salaam ne ko dama bëgg nga nekk féetam fépp gannaaw daa wax ne daa bëgg mu féete ko fépp ah nun itam loolu lañ bëgg ci Sëriñ ba kon buñ jeexale suñu lépp ci moom bëgg mu féete nu fépp nan ko jox suñu lépp te buñ ca desal dara boobaa dana nangul sunu jaayante féete nu fépp te booba ci la ñuy amee tawféexi tey ak ëllëg ci la ñuy amee ajjana tey ak ëllëg ci la ñuy ajee Sahada kon nan sax ci loolu kon loolu moo waral Sëriñ Tuuba buñ ci dellusiwaatee ba xalaataat danañ gis ne dëkkam bii mu tuddee mat Matlabul Fawzayni ñu tuddee ko lakk Touba muy Toubaal Mahrousa kon Matlabul Fawzayni boobu nun dañuy daal gëm na suñ bale mii mën naa dellu ci loola mën nañ cee sakku am texeeg adduna googu àlaxira kon nan ko ci gëm te jaayante ko ci te nekk ca te soññ ci ñëpp nooy bëgg daal ñëpp lu waay man nuñ ci daan doxe lu waay lu ci daan waaye daan doxe nga doxe ci lu ko ëpp ndax mu gën a yomb gën a matale gën a rafet luñ ci daan jële ci yiw nu jële ci yiw ëpp loola ndax suñ motulaay wax na ko ci biir yoo xam léegi yi woon ci ñaan bokk na ci mbale mi bu setee jàngoro ji seet ci réew mi te wax da doon ko wax ci mbale mi ci lan doon dox ba gisatuñ choléra ginnaaw màggal ci dëkk bi kon nan ci doxe ba dootu na ko gis corona ci dëkk bi ak ci réew mi ak ci adduna sépp yàlla tëliwul dara mën na lépp yàlla na ko yàlla defal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla na yàlla jëlee jàngoro ji yàlla na yàlla faj yi yàlla na da dajeeg tawfeexi Sëriñ Tuuba ba liggéey bii ndam luñ ci masaam noo am ci lu ko ëpp noo ko mbokk yi Tuuba ci kanam ya ak fépp taalibe bi di liggéeyal Sëriñ Tuuba yàlla na ko Sëriñ Tuuba gàndu ci tawfeexam ba mu taxaw ca ndam ak ndimbal ba am ca aajo ji faju biir ak bitti mu delluwaat ci radiyallahu anhum wa radu anhum noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi dégg ngeen kàddu yaa ngoogu boog bàyyi ko ci sëriñ bi muy soññee liggéey bi ni mu ko baaxoo defee ak ñun liggéey la boo xam ne noo ngi ko fas yéene tàmbali incha allahu taala le vingt septembre muy dibéer ji ñu jëm ni ko sëñ Mourtala si waxee képp koo xam ne bëgg ngaa dugg bëgg ngaa bokk ci liggéey bi am na noo ci mën a bokkee ndax liggéey bi kët ñaara ko seq mbooloo mi bari na waaye ñaar ñaara seq liggéey bi oto yi ak nit ñi oto mënut a ñàkk gasoil nit mënut a ñàkk xewlu kon nag nees ci mën a dugge bari na ak jumtukaay yi nga xam ne itam moom la ñuy liggéeyee ñu ba ñu bàyyee ko xel te sëñ bi tudd na ko kenn ku ne xam nga li li li liggéeyu mbale jumtukaay yooyu lu ci ñëw doyut. bu ko defee ñi nga xam ñi nga xam ne itam yàgg nañuy jàpp ci liggéey bi muy suñu kilifa yiy joxe ndigal li te yàgg cee jiitu noo ngi dalal sunu xel ci ñoom ndax ñoom yàgg nañoo wane yoon muy Cheikh Mamadou Mountakha mi ak Cheikh Mamadou Bachir at mu jot ñoo ci jëkk ñoo ci man te loolu wane nañu aw yoon kon noo ngi leen di sant di ñaan ci liggéey bi sunu borom gën leen fee yàggal te wéral leen te kàttan na leen ba ñu àggale seen yéene yàlla nañu yàlla déggaloo seen positif ci barke sëñ Touba kon nag woote baa ngoog mooy dibéer incha allahu taala ci la ñu tàmbali mbaleem Touba mi noonu ko sëñ bi waxee sëñ Murtala si waxee ko ni kon na ko ñëpp bàyyi xel dibéer la incha allahu taala ñu tàmbali liggéey bi niñ ko daan defee. ànd ko ak ak bokk yi di ñaan sunu borom tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim àggalee ko ak alhamdulillahi rabbil alamina set ak setal bii ñu xewal ci mbedd yi dañ ko war a ñu tàmbalee ci dënn yi ko xool ganaar ba naw ko ngir setam ga daa yërëgul ngunoom la foon xetam ga setab jullit na jëkk foot xolam ba génn ca waaju wedd yàlla buur ba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu